alhamdulilah nan sant yàlla bu baax bi ne suñu borom booleeg sëriñ Tuubaa muy cër bu mat fekk tey kaw kaw suuba kaw ak doon alaxira nan sant bu baax a baax a baax nag sant sëriñ Tuubaa rek sant sëriñ Tuubaa mbokki taal bi bàyyi xel di topp xasida gi di nuuru daaray ni fii xidmatil aami anil haaray ni li seqi ahmad al xadim kaana lahu bi karamil baqal xadim mu mel ni kon bi ngeen ñu toppee noo ngi woon ci bind bu am solo xam ngeen ne bu yàgg ba léegi sëñ baa ngi sant ci biit weer yi mi lu ko dalee weeri mu aram ba silhit ji lépp bu yàgg ba léegi sant rek yaa ma jox nangam yaa ma jox nangam lay firndeel cant gi rek démb suñu bindab démb bi bëri na ay cant lool ci yi nga xam ne boroom jox nag ko te mu wéet ci lool nag nga xam ne kenn du ko ci fekk bokkoon na ca fu may waxee yàlla na ko ñeel na la sama cant yi ci weeru sil kon nag salli salaatan li tutayibul xoxoot fii kulli saxrin wa yaquudu bi saxit ilayka bi sikrew bil hadisi bi hikmin ya muxtiya tahdisi alalasi tayatta nafsiya kama waxatali biir huda wal hikma yow yàlla maa ngi lay ñaan gu julli julli goo xam ne dana teeye dana ma teeyalal sama jékki ci biit bépp weer waaye dana wommatee da nga wommatee ci sama jëmm koo xam ne aji texe la da nga ko wommatee sama jëmm ji ilayka maanaam mu jëm si ci yow waaye nag biskiri ànd kook alquran woo bil hadisi ak ahadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi hikkamin ànd kook ay xam-xamu hikkam yaa muxtiya yow mi nga xam ne yaay ki ma jox a tax diisi xam-xamuk hadis ya maanaam hadis rek la ci jublu yàlla mooy ki ko jox kon déclaré na ci ay barab yu bari na yàlla ko jox hadis wax ne ne xam-xam yu am njëriñ yëpp yàlla jox na ko itam mahal ahadis sihaahi saaburo wax na ko sax foofu ci xasida googu tedd googu di wakkaanaa moo tax kon yaa day nekk kon yaa umu takkali muy yaa muxtiya yow yaay ki ma jox a tax diise hadis yi te mooy xam-xamuk hadis yi kon nag salaatu googu alal la fii tayabta nafsiya kama yàlla na ko sotti ci kaw yonent bii nga xam ne moo teeyal sama bakkan kama waxabta lii comme ni nga xam ne noonu nga ma mayee lii ñeel ma man sëñ bii ci darjaam alhuda njub huda goog nag mën nga ko taayu ne sëñ bi ci jublu kon xëy na lay nekk wal hikma ak ay xam-xamu hikam bim ne salaatu gi na nga ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu xam ne teeyalee sama bakkan ci darajam ci kaw yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne moo teeyal sama bakkan ni ki noonu yow yàlla noon nga ma mayee li nga xam ne mooy njub mu jub mu jublu ci jëmmi alquran ndax alquran hudan lil muttaqina njub la ñeel way ragal yàlla moo tax téere bi njub la tudd téere bi njub bi kon wax na ne yàlla may na ko hadis yi may ko xam-xamu hikam waaye may ko jëmi alquran ndax bi mu ne yaa muxtiya taxdiisi xadis yi dugg na bi mu ne waxabtali biil huda alquran dugg na wal hikma xam-xam hikam yi ñëw laa ko bar moo tax kan mu ne yaa muxtiya yow yaay ki ma jox ak taxdiisi xadis yi muy xam-xam ko xadis yi kon nag la lësi yàlla na nga sotti salaatu ko ci kaw yonente salaa salaam mi nga xam ne tayab ta moom yón moom yonente bi teeyal na nafsee sama bakkan kamaa waxabta kon ni nga xam ne yow yàlla yaa may lii ñeel ma bii ci darjam alhuda goog njub lay tekke waaye lëcc sëñ bi jubli fi mooy alquran yaa ma may alquran wal hikma ak xam-xamu hikam ya ya ca nekk yëpp yaa ma ko may mu mel ne dañoo xamutoon turam nag moo tax mu ne kooku mooy sunu sang bi turam mooy Muhammad salaatu gi ne ñëw ba ci waa jëm koo xam ne dana jël lu ñaaw jëmee ko ci man na nga ko dàq mu jëm ci fudut man balaa muy jël lor goog di ko teg ci ko teg ci sama kaw te boo ko dàqee yow yàlla na ko xamal ne ko duma moroom te yàlla boo jëmale ak tooñaange sama wàll te na nga màng lépp luy xeeti métti ak koo xam ne dana ma kañaane mu jëm ci ku dul man yow mi nga xam ne yaay kii ma xaar maanaam nga xam ne yaay ki ma xaaral sa bopp ci lu ko tàmbalee weeru muharram ba jeexantalu si lijja nga xam ne lépp lépp lépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laay roy di ko tagg di julli ci moom te lool mooy sama lay kon maa ngi di ñaan nga nekkal ma ci biir bépp weer ak xat yow mi nga xam ne kawe nga wëlis di nelaw ak i gëmmentu yàlla du nelaw waaye nag yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala du gëmmentu nga xam ne loolu yëpp dafa jom mi ci jëmmi suñu borom bi tabaraka mu ne ko maa ngi la ñaan nga dool xewal goo xam ne dana ma nekkal ci samay mbébét waaye dana ma wommatal la xam ne ña taxaw taxawaayu am ca payor lépp maanaam jëmmi xewal gi moo ma na ànd kook salaam goo xam ne dana géemal wépp xëy woo xam ne naroon naa jóg rek maanaam salaatu salaam gi moo koy fay waaye dana ma wommatal yëpp yi woo xam ne santees nga ko waaye salaatu googu na nga ko sotti ca kaw yonent bi yi nga xam ne liggéey bi ma koy liggéeyal mooy li ma wommatal la nga xam ne ku dul yonent bi jogoon na di ko wut ku dul bi la nga jogoon da ko wut liggéey bi ma koy liggéeyal dafa yëg ne maa ngi liggéeyal jëm yonent bi loolee xéwal yooyu yëpp ñoo daw ñoo laxut ci man mu ni kooku mooy sunu sang bi trop mooy Muhammad mu ni salaatu gu ne ñëw ba ci waa këram ak saabaam yëpp tey jii ak tey jëm mu ne maa ngi lay ñaan nga def sama xasida gi ci darjaay ngeen ci bindeef ci luy sax ba faw mu doon ngërëm ñeel yonent bi salaay salaam waaye mu doon a kawe ci li nga nga xam ne yaa ma may ci weer yëpp ay mbégte waay weer yëpp yaa leen teeyalee ci man yëpp waaye nag a fukki fan yi nga xam ne ñooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski kon nag maa ngi la ñaan nga wommatal ma mboolem xéwal yoo xam ne dañoo feeñ ak yu nëbbu yëpp ci weeru tabaski ak weer wu man di doon rek ci mboolem fukki weer ak ñaar yi mboolem xéewal yi ci feeñ ak yi ci nëbb yëpp nanga ko womat jox ma ko allahu akbar lii xutta man jalaa wa ma takk ma naa waaye wali badal bisru bi ayaami min naa ah kon ba muy tabaarikalla sëñ Tuubaa mooy kenn xamut mu ne ah wa badaa feeñ na lii ñeen ma albisru mbég bi ayaami min naan ci fani min nan yi kon fani min nan yi moom saa yu ñëwee rek mbégteem suñu borom da ko cee dikkal ak jamono ji mu ne yàlla yaay ngi lay ñaan nga doolu xéwal xéwal goo xam ne du dañ mukk di aji jolleeku ay leeram waaye nag xéwal goo xam ne bépp ciiraay da koy dox sànni fële waaye ne na ànd ko sëlmal goo xam ne ay leeram ay leeram ci jëmi boppam danañu laabal xolob ki nga xam ne day jàng xasida gi waaye dana ñawal xolob ki nga xam ne ba tey day jàng xasida gi kon mu mel ni kon ngeen ñu toppee démb foofu lañ jëmoon incha allahu tey ñu war a sos ak yéen incha allahu alal la si jaaltuhu wasila lakka wa qaadalil huda waqila mu ne jëmi salaatu kooku alal lati yàlla na nga ko sotti ci kaw yonent bi salaay salaam yi nga xam ne jaxaltuhoo def naa ko wasiila muy sama sëriñ lakk ka jëm si yow waqaadali tamu womatal ma alhuda alquran waqiila ak ahadis ya sayidina kooku mooy sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wala ali salaatu ko dañ ñëw ba ci waa këram ba sang ak saabaam yëpp fil haali fii ci duna wal maali ak delluwaay ba tama ëllëgee mul mu ne jëmi salaatu kooku ndax bii aroma jamihal xayru min maliki fa huwa alwasilatu fii sirrin wa fil alani sëñ Tuubaa ne ni ci lu nëbb ak ci lu feeñ rasulullaay képp mooy sama sëriñ keneen sëriñ do doytul ma benn sëriñ doytul ma rasulullaay ci laa mooy jàppandu ci waaw ah, mooy sama sëriñ baana li kulli man lahu man xoolu anna wasilati huwa rasulu huwa moom a rasulu moom <laughs> nga sëñ Tuubaa moom tabarkala moom mbiram ñëpp da koy wax mu leer nañ ñëpp di ko digg ci kaw huwa rasulu waxul sax lahu rasulu waaye nag dane huwa rasulu na la si naba bi xidmatin aba waaw na la si naba la hoo rasulu bi xidmatin aba la hoo jalilu kon yonent yi moom mooy njiitam mooy léppam mooy ilimaanam moo tax ma ne salaatu gi ala la si yàlla na ko sotti kaw yonent salaatu salaam yoo xam ne jaaltoo def naa ko na ko ko wasiila muy sabab sëriñ lakk jëm si yow wasiila mooy koo xam ne dafa dox si digg ak yàlla nee na yonent bi mooy moom waqaada li waqaada li ta nga wammatal ma alhuda jëmmi njub mu jublu ci alquran alquran lay tuddee njub ndax alquran dafa bëri téere fu dan li mu taqal njub la ñeer way ragal yàlla ñi képp ku dëng boo ngoy ci alquran da nga jub moo tax mu koy tuddee njub wa huwa huda wa siraatal mustaqimi lana fa kullu man xaafoo laaqa saxaawaati mooy njub gi nga yoon wi nga xam ne mooy njub gi nga xam ne amul ci kisàkk képp ku ko wan gannaaw da nga dajeg texee di moo tax ma ne waxaadali te nga woo ma tal ma alhuda mu jublu ci alquran muy njub ga wa qiila mu jublu ci hadis yi hadis yi yonente bi sallallahu alayhi xam nga hadis yi léegi da nga da ngay jàng xaala qiila nangam nangam moo tax sëñ Tuubaa dafa yéeme nu mu jekkoo langu xarab ak nu mu ko maîtriser gis nga mu ne alhuda alquran wa qiila ak ahadis yi nga xam mi ngi ci jublu rek euh, ahadis yi xiila jëlee nañ ci nangam mu jëlee ci nangam loolu rek moo tax mu ne wa xiila xam nga lii la hadis léegi-léeg da ngay jàng ñaan la jël abi hurayra te jëlee na ci kenn waaye léeg-léeg nga na nangam mu jëlee ci nangam mu jëlee ci Aïsa mu jëlee ci abi hurayra te mu dogo jëlee ci yonente bi salaay wala diw jëlee na ci nangam mu jëlee ci nangam ma xam ne ay taabee na loolu moo am na ci yoo xam ne nag wér nañ am na ne réwuñ moom lañu di baata xiila ak la mooy wax ju wér tax bu ñu la indilee ñaari wax la ñu ne la bii xaala la jëlal kaala da xaala moo gën a wér diw wax na uh-huh. kon dañ naan diw wax na waaye xiila waxees na mën naa wax ja wér na mën mën naa wér sax waaye mën naa ñàkk a wér moo tax mu ne waxaadali yaay ki ma womatal alhuda alquran wa xiila ak ahadisa kon nag sayidna kooku mooy suñu sang bi muhammadin turam mooy muhammad wala ali salaatu ñëw ba ci waa karam bu son bi ak sabaam yi tey ji tey ji ak ëllëgoon ñoom kon moo ko jox alquran ak ahadisa moo tax mu ne waxaadalil huda wa xiila mooy ki ma wamatal moom yonent bi njub te muy alquran ak ahadis ya te muy waxam ya kooku mooy sunu sang bi tur mooy Muhammad salaat bi ñëw ba ci waa këram ak saabaam yi tey ji tey ji ak ëllëgalu jëm mu ne wàccaan yàlla na nga def róo fii sama xasida gii haasiyi gii anwaara mu doon ay leer yaa man yow yàlla mi nga xam ne wajaha jëmale nga jëmale nga li xëyri mu jëm ci ku dun man albawaara alkande kër la ci këri safari daarul bawaari alquran indil ko daarul bawaari dafa bokk ci kër yi nga xam ne mooy këri safara yi muy alkande kër goo xam ne ku fi dugg rek alaku nga dëgg-dëgg mooy ko dugg safara moo tax ma ne def jëmmi xasida gi doon ay leer yow yàlla mi nga xam ne yaa jëmale ci kudut man alkande alkande maanaam yaa ko jëmale ci kudut man safara yaa ko ñoddi mu jëm ci kudut man moo tax ma ne waccaxal na nga def roo fii sama xasida gi haas yi gii mu doon ay leer yaa man yow mi nga xam ne wajjaxa jëmale nga li xëy mu jëm ci kudut man albawaara li nga xam mooy alkande yallahu ya rahmanu ya rahimu ya man bi salaamin muminin xat sumiya mu ne yàllaahu yow yàlla woo naa la ya rahmaanu yow mi nga xam ne yaay kii xéwalaa kon bépp ndéef ci àdduna yaa rahimu yow mi ajiram ku la soob ci àlaxira yaa man yow yaay ki nga xam ne xat sumiya tuddees na la bi salaamin mooy dafa bokk turam yi muy jàmm moominin mooy aji loo ab jaamam gis nga baatam moomin tey fu ne bu ñëwee ci yàlla doo ko tuddee ku gëm yàlla waaye bu ñëwee ci yàlla mooy kuy wóoluloo ab jaamam waaw huwa allahu lasi laa ilaaha malikul xuloo salaamul muuminu doo ko firee mooy aji gëm de déedéet waaw doo ko firee mooy aji gëm mooy aji wóoluloo ab jaamam al muuminu gis nga bu ñëwee ci julli nag bu ñëwee ci doomu aadama xaqiqatan lañ koy firee mooy ku gëm yàlla lañ koy firee moo tax ma ne yàlla woonaal yow yàlla yaa raxmaan yow muy xéewalaa kon bépp mbindeef ci àdduna ñu lay widdi ak ñu mooy yëpp yaa rahim yow miy ak jëram ku la soob ci àllaaxira mooy ñu la doon jàmm ci kaw suuf yaa man yow yaay ki nga xam mooy dafa bokk turam bi salaam mooy jàmm ndax gis nga ci 99 ci la bokk tur yi yëpp noonu la ko teglee ci jeexantalu suuratu alxasri wallaahu li si laa ilaaha illal malikul qudus salaam yàlla mooy jàmm mooy borom jàmm ji képp ku am jàmm mooy këli jàmmal moo tax la mooy borom jàmm ji jàmm mooy ci turam ya fa mu mel ni yàlla da ko wuyu mu ne ko sallit yàlla na nga doole xool salaatan dolli xëyul goo xam ne tusali dana musal omri sama dund min kulima ci lépp loo xam ne te ji u dana dikkal bii ci moom aslu mu tooñaange nee ne maa ngi lay ñaan julli julli goo xam ne mboolem samay dund lépp luy xeeti tooñaange dana ci mucc kenn du ma tooñ waaw sama dund daal xéewal gi na nga jël xéewal goo xam ne tabarika la xéewal goo xam ne ci jëmi boppam moo may muccal ci sama dund lépp luy xeeti tooñaange moo tax ma sëlli yàlla nga doole xol salaatan doole xol boo ne tusali mu dana musal omri sama dund min kulma ci lépp loo xam ne te ji u dana dikkal asulu mu tooñaange bii ci sama dund loo xam ne tooñaange mën na ma caa fekk dikkal ma kookee jëmmi salaatu gi tabaaraka wa taala jëmmi salaatu gi yow suñu ci musal jëmmi salaatu gi na ma musal ci lépp loo xam ne mën na maa fekk sama kër rek wala foo mën a nekk rek dikkal ma indil ma ay tooñaange kon nag yàlla na yàlla musal ci tooñaange tooñaange sëriñ bi ne maa salaamin yasriful aqyaara li xayri qalbi yajsibul aqyaara mu ne maa salaamin xéewal goog na ànd koog sa dolli góolu muy jëmmi salaatu goog mu junjoon ne maanaam yow yàlla maa ngi la ñaan ngu julli xéewal goo xam ne salaatu goo xam ne dana musal ci sama dund ci lépp loo xam ne tooñaange mën na ko ciy dikkal rek maanaam da nga ma ci musal mu ne maa salaamin na ànd koog sa dolli góolu goo xam ne yasrifu dana wëlbati moom jëm jëmmi dolli góolu googu moom salaam googu al axyaara mboolem yu ñu sib yëpp yëpp yëpp li xayri xalbi bu jëm ci fudut sama xol na ko wëlbati al axyaar bu ñu ko waxee mooy yi nga xam ne dañuy nekk ci xolub nit ki doon ay nëx nëx nga xam ne taamuñ ko taamuñ ko ci jëmmi xolub géej ki léegi nag jëmmi salaam gi nee na yasrifu dana wëlbati al aqyaara yu ñuy sib yi li xal bi mu jëm ci fudul sama xol man jëmmi suñ tubaa waaye jëmmi salaam googu yecc ci bu dana ñoddi dana xëcc al aqyaara tànneef yi ilaa mahabbati ñi jëm ci sopp ma bëgg ma bilaa addaqaani ci lurul ñi may sànj bilaa addaqaani ci lurul ñi may bañ yaa mun si lan woo naa la yow aji berndeel ji nga xam ne jaada yaa tabe yow yàlla liy ñeel ma bil maqaan yi ci li nga xam ne mooy ay koom yaa ma tabe ay koom tabaarkalla bil maqaan yi maqaan waxoon naa leen ci arab day kër day tekki ak koom waaye fii moom li muy li wax ne rek moom mooy li ko yàlla tabe mooy koom ci boppam moom la ko yàlla tabe ci ay këram. moo tax ma ne jëmi salaam googu na wëlbati lépp lu ñuy sib ci xol bu jëm ci ko dul man waaye na ma bijjal li nga xam ne mooy tànneef yi nga xam ne gis nga ak yaar nga xam ne xañimin tulu ak xalonk bokk gis nga. ak yaar lay safaanam mooy ak yaar ak yaar xalonk bi nga bàyyiwaale ko xel bu baax baax bu dee axyaar nga xam ne xañu min tullu la lay safaanam mooy axyaar moo tax nga ni nga ko indee maanaam salaam goo xam ne dana wëlbati lépp lu ñuy sib lépp loo xam ne bu nekkee ci xol ay nax-nax la koy jural rek na ko wëlbati ma jëm ci fudu sama xol waaye dana ma ñor la axyaar mooy tànneef yi ñi jëm ci bëgg ma nga xam ne kon mboolem tànneef yi yonent yi ñëpp ci yem maanaam borom moo leen di ñor di ngir lan ñëw ngir lan bëgg bëgg jëmi sëriñ bi ngir lan julli gi ci yonent bi ak tagg gi may tagg jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ma ne may bañ bi laa adxaan ci lurut si lan yow aji berndeel ji nga xam ne jaadali yaa ma mayel sama yaa ma mayel sa bopp bil maqaani ci li nga xam ne mooy ay koom fa tabarakallah mu ne jëmmi salaatu wasalaam googu yëpp nag tabaarkalla ma sàkku ci yow mu ne àllal la fi yàlla ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne xidmatuhu liggéey bi ma koy liggéeyal tayabat teeyal na lii ñeel ma mawaati nii sama dëkkuwaay bii wa wahaba tamay na lii ñeel ma hudaaka sa njub sayidina kooku mooy sunu sangi muhammadin turo mooy muhammad wala ali salaatu bi na ñëw ba ci waa këram wa sax bi ak ay saabaam ñëpp fil haali fii ceeduna wal maali ak delluwaay mu ne jëmmi salaatu salaam googu na nga ko sotti ci kaw yonent bi salaatu salaam mi nga xam ne liggéey bi ma koy liggéeyal moom yonent bi moo teeyal sama dëkk bii waaye moo ma may sa njub ndax wax naa leen njub njubug yàlla la waaye itam njubug yonent bi salaatu salaam ndax njubug yàlla moom la jox yonent bi salaatu salaam moo tax ma wax ca geneen xasida na huddal lasil basaru wal kalaamu lahoo huddal muxtaay nee na njubug yàlla mooy njubug yonent bi moo tax mu ne liggéey bi may liggéeyal yonent moo teeyal sama dëkk bi waaye wow wax a bat mooy li ma may lii ñeel ma man sëñ tubaa hudaaka sam njub yow yàlla liggéey bi moo koy liggéeyal moo may sam njub kon sëñ tubaa dem na ba yàlla may ko jëmi njub mu ne kookee nag nga xam ne liggéey bi moo koy liggéeyal moo teyal sama dëkk bii moo ma may sa njub sam njub yow yàlla mooy sunu sang bi trop mooy muhammad salaatu gën ñëw ba ci waa karam ak saabaam ñu tey jii ak ëllëgënu jëm mu ne yow sunu borom waxab yàlla na nga may lii ñeel ma al amaana sécurité fii kulli layaat ci bépp xéewal ci biir bépp xéewal maanaam xéewal bu ma yàlla mos a jox rek na ci may sécurité ba mu doy sëkk ndax sécurité al amnu sëñ bi da koo bëri lim ko indi ci xasaayit yi moo tax gis nga jànkatu xasaayit day dëkk ci mbégte waaye al amnu ak sécurité kenn du ko mën a lor jàngatu xasaayit gis nga loo bëgg bëgg bëgg damay faral di wax ne maanaam tëqoo lu ne lu ne baax na ñaan bu ñu la mën a tal baax na waaye nga tëqu xasaayit yi moom du ko ëpp doole xasaayit yi ngàndaay lañ te suñ tubaab moo leen wax moo ko wax naa ba kitaaba ki anisilaahi wal jawalaani li sawi salaahi tay rek li mag ñi daan def di dugg xalwa wala ñuy dem si sëriñ su baax ñi leen di tegtal yu baax yi wala ngay dem di jaar ci yoonu yàlla yooyu yëpp bindem Sëriñ Tuubaa da ko wécc ak bindem Sëriñ Tuubaa moom ngëpp ci rek te bañ ko bàyyi te xasida goo ci ngëpp ku lu gën a tuuti nga tëxoog moom rek dafa mel ni tëxoo nga ak ñëpp ndax xasaayid yi ni alquran mel noonu la xasaayid yëpp mel xasaayid yëpp ñoo bokk fu ñu dee ko sëñ baa leen bind moo tax man waxaat lii maa ma al amaane du sécurité defal sécurité waaye waxtaan yàlla na nga def xayaati sama lépp yii ci dara yonent bi xayra ayat muy ngën ci jeeko ayat nag mooy tekki xéewal rek waaye fii li ci sëñ Tuubaa jublu mooy jeeku yi muy dox dundam jeeku yi muy dox maanaam na doon ngën ci jeeko nga xam ne kenn ku ci nekk ay jeeku ngay dox jëm ci yàlla mu ne nag dundam lépp lépp na doon ngën ci jeeku tabarkalla moo tax lu waxaat lii yàlla nag ma may al amaana sécurité fii ku la yaat ci sama biit bépp xéewal wàccaal yàlla na nga def bii ci dara yonent ba xayaat yi sama dund lépp xayral ayaat muy ngën ci jeeku gën ci jeeku nga xam ne lam ci jublu mooy xéewal nga xam ne jeeku yu muy dox di jëm ci suñu borom tabaaraka wa taala mooy jeeku yoo xam ne jeeku yu gaaw lay nekk moo tax mu yàlla na nga def sama dund lépp muy ngën ci jeeku tabaarkalla mu ne wàccaal yàlla nga def xilaami sama xalima gi wa midaadi ak sama daxa ji wa lisaan ak sama làmmañ daax yetan ñoom ñett ñëpp boo leen boolee ndax yetan mbir moom muy aji wootee ñoom ñett ñëpp li sil jamaali jëmee ci yàlla muy borom taar ba waaye nag bii hisaan doon woote bopp ne bu rafet la <laughs> xam nga day junj benn laaye ci laaye alquran yi fu suñu borom di waxe yonent bi na ko udduhu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawxisatil xasana boobu nag maanaam jëmee xasaay yi dañ koy def xam nga yonent bi tey ni mu doon wootee waaye suñu borom na ko dal woote jëmee ci sa yoonu borom waaye nag bil hikma mooy ci science ci xam-xam ci hikma waaye wal mawhisatil hasana mooy waaraatu wu rafet waaraatu wu rafet mooy lan mooy doo dem rek fekk say maam ñi nga toog ci roon dàtt ja wala ci kaw dàtt ja di waxtaan te kenn gëmul la ca nga xëy xëy rek indi diini ju bees xëy xëy rek dem di leen gëdd naan leen ñëw leen dugg ci diini ji déedéet dal dal jaamu sa borom di leen ximam loo diini ji bañ xam ne kii ab yonent bu yàlla la ji boo gisee yàlla bu ko neexoon ñëpp xëy rek dugg ci lislaam waaye déedéet yonent bi la jox jëmmi nubbuwa waaye ba noppi ne ko dal woote woote bu rafet dal xemam loo sa diini ji yéeféer ñi bañ xemam ko doog a ñëw dugg loolu moo gën nga dem rek fekk nit ñëpp toog nga ne leen dañ maa yónni ci yéen di wax ak ñoom di leen xas ba yegg si sax di leen dóor loolu la ko yàlla di bañal na ko wajaadilhum waaw udoo ilaa sabiili rabbika bil hikmati wal maw'izatil bi wal maw'izatil hasanati wajaadilhum na nga dagg sante ak ñoom bi lati hiya ahsan dagg sante goo xam ne mooy bu rafet la mooy na nga leen woo rek buñ bañee itam bu leen sonal léegi nag jëmmi xasida yi dañoo taxaw taxawaay boobu mu ne waxtaan yàlla nga def xilaa nii sama xalima yi sama kalima gii wa midaad yi ak sama daa jii wa lisaan ak sama lamañ ñoom ñett ñëpp ñëpp ñëpp nga xam ne xasiida yi rek la ci jublu yëpp ma jaat la daax yatan mbir moom ñuy aji woote li ci jamaali ñeel borom taar ba bi lisaan waaye doon woote bu rafet <laughs> kon ku bëggul xasida kon ku bëggul xasida kooku perte nga ndax xasida yi saa yoo koy jàng mu mel ni yaa ngi woote di jëmee ci lislaam mu ngi mel ni yaa ngi woote di jëmee ci lislaam waaye nag ci ma ak mawxesa ci xam-xam ci science waaye nag ak waaraati wu rafet boo xam ne doo dóor kenn jàng jàngatu ko si moo tax tabaarkalla yàlla defal ko lépp moo tax mu ne daahiyatan di aji woote li fil jamaali ñeel borom taar ba waaye nag bi hisaan waaye nag doon xoote boo xam ne bu rafet la nga xam ne ñëpp tabaarkalla da leen di woo rek jëmee leen ci yoonu sunna jëmee leen ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni ko yàlla digalee woon moo tax borom taar bi mi ngi ci jublu jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne waccaal yàlla nga def kitaabati sama mbind mi lil jinaani ba kerek may tàbbi aljana moo si la tan mbir moom muy aji yeggale mu nii la tan di aji leeral janaani sama xol mu ne na nga def sama mbind bi muy yeggale aljana aljana waaye nag na nga ko def mu leeral sama jëmmi xol man Sëñ Tuubaa na yeggale aljana waaye bu mu ca yem rek waaye na leeral sama jëmmi xol wàccal yàlla nga def kitaabati sama mbind bi moo si la tan mbir moom muy aji yeggale lil jinaani ñeel aljana ya waaye mu niiratan mbir moom muy aji leeral nag janaan sama xol nga xam ne ku ci jàpp ku ne na la wóor na ci yoon nga nekk te da nga te da nga yekk jëmmi aljana waaye na nga ci leeralaale sama xol yow yàlla sama mbind mi kon bokk na ci ngëneelu xasida ga moom it muy bayit yi mu yaatal xarsi wal kursi yi yaa mut xifan bi shirrikal xutsi yi yàllaahu yow yàlla woo la yaatal xarsi yow yàlla muy borom xaras wal kursi ak kursi yu nga xam ne bu ko waxee wax naa leen yàlla day bég day kontaan bi nga suñ tuwaa boo maanaam yàlla day bëgg day bëngeen day kontaan moo tax mu ne ko woo naa yow yàlla muy borom xaraf ak kursi yu yàlla mu mel ne da ko wuyu mu ne ko yaa motifan yow yaay ki nga xam ne yow yaay ki ma may bi sirri ka ca secret ba al xutsi yi bay aji sell maanaam yàlla da ko may jëmmi secret xutsi yu maanaam jëmmi xutsi yu maanaam turum woobu suñu borom di wax al quddus mooy sellaakon bi waaye jëmmi xutsi yu secret ba la ko yàlla jox li nga kon yëpp sant yàlla la di woo yàlla di ko tagg di ko bàkk ba noppi doog koo xamal na ko yaa may nangam ko ko kooku yeneen la day sant yàlla ba noppi doog koo bàkk kañ ko tagg ko jox ko toxi gu mat sëkk jox ko wax na ko yaa may yaa may nangam parce que ko defee yàlla rek yàlla da koy yàlla da koy dollil da koy dollil da koy dollil boo ko xoolee ci jëmmi nit ñi ku leen ko def rek dañ dañ lay xapp xaalis rek rawatina ci xew tey boo ko doon def rawatina ku toll ni yàlla boo ko woowee jox ko tawhid bàkk ko kañ ko ba noppi doog koo sant <laughs> Sëñ Tuubaa noonu lay def mu ne ko yàlla yaa solxarsi yow yàlla muy borom xaras wal kursi ak yaa mut yi fane yow yaay ki nga xam ne may bi sirrika ca sekkare ba al bay aji sell yaa ko may sa sekkare bi yaa ko may laa fa kubar tubaa eh, du kenn maanaam ni muy ñaanee yàlla ni ko yàlla di mayee man damaa jàpp ne maanaam suñ tubaa ñaan la kenn ni mu tuña moo tax mu am lu kenn amul nag moo tax mu ne sëll nga dolli salaatan dolli tadd manu dana làmbaayoo bi falaayin ak texe lii ñeel ma abadan ci luy sax ba faw waaye nag la dayka fa yow texe texe ji yaa muhayminu yow yàlla muy aji jàkkaarloo lépp te tiim lépp tubaarkàlla kooku mooy muhayminu mu ne maa ngi lay xam ne dana làmbaayoo ak texe texe goo xam maanaam daf may làmbaayoo ma doon koo xam ko texe daal waaye nag fa yow nga xam ne damay texe fa yow du ma texe yow yow mi nga xam ne yaay ki jàkkaarloo lépp lépp lépp lépp dara na buut lépp nga gis kooku mooy muhayminu moo tax ma ko sëlli yàlla nga dool ko yow yàlla salaatam dooli xéwal goo xam ne talmanu dana lambaayoo bi falaahin goo xam ne day ànd kook texe lii ñeel ma abadan ci luy sax ba faw la dayka waaye nag texe gi fa yow yaa muhayminu yow mi jàkkaarloo lépp waaye nag maa salaamin na ànd kook sëlmal goo xam ne yaati dana ma dikkal bi salaahin ci ak mbaax waaye yëquudu dana womat lii ñeel ma alhadisa hadis yonente bi kal ayaati ni ko aya alquran yi gis nga gën na koo feddale boobu léegi muy wax ne yàlla jox na ko jëmi hadis jox na ko jëmmi alxuraan jamono ji nekk mu di ci gindi nit ñi di leen teg ci yoonu siraatal mustaqim di leen ci moom moo tax ma ne na ànd koog sëlmal te mooy salaatu googu boo xam ne nag dana ma wommatal hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak aay yi boo waxee aay yi alxuraan lépp la ci jublu boo waxee hadis hadis yépp la ci jublu moo tax mu ne maa salaam yi na ànd xam ne yaati yi dana ma dikkal bi salaahin ci ak mbaax te mooy boo waxee mbaax rek mooy yiw yëpp dugg nañ moo tax ma ne yaati dana ma indil bi salaahin ci li nga xam ne mooy yiw yëpp waaye yëquudu li dana ma wommatal alhadis hadis yonente bi kala aayata mi ngi aaya alquran yëpp tubaar kala dan ma ko indil salaatu wasalaam googu yàlla